Eh, une élection Sénégal dafa mel ni dañoo bëgg a commencer tàmm jël li yoon wax teg ko fële bëgg a wéer lépp ci waxtaan ak masla et de plus en ñu ngi nekk di ancrer dans la tête des Sénégalais que bu ñu waxtaanee rek mën nañu sax ensemble ñu violer la la la la loi je reviendrai sur cette loi euh, d'amnistie kii nu mu tudd statut bi ñu bëgg a jox ce qu'on appelle les candidats spoliés man euh, loolu jaaxal na ma pour man est-ce que ça ne procède pas d'une manœuvre politique c'est-à-dire en 2019 ñu ngi doon doog a introduire le gouvernement l'exécutif n'a pas été aussi concil conciliant avec euh, toutes les erreurs qu'il y a eu y a des candidats qui disent la même chose aujourd'hui à part la question de la binationalité on ne les a pas écoutés on a retenu la liste des cinq candidats et puis on a avancé on a fait l'élection avec ces cinq là tey ñu ñëw des candidats retenus ont fait des témoignages pour dire que les opérations ont été clean et transparentes au Conseil constitutionnel vous, vous êtes vous êtes d'avis que les hommes politiques ne sont jamais bons perdants ñoom ñu profiter d'une d'une situation taxaw tuddee seen bopp candidat spolié et puis l'exécutif le président de la République leen def allié bëgg leen def partenaire xam nga bu leen recevoir lan leen wax par bi mu recevoir spolié daf leen déglu ñu wax grief yi nga xamante ni yëpp ñoom moom la ñuy articuler sur le processus électoral et notamment vérification parrainage président leen dégg naa leen rafetlu naa li ngeen ñëw seet si ma pour wax ma ko comme ni ngeen ko waxee en tant que garant du fonctionnement des institutions mun leen waaye cité leen article la constitution les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours et s'imposent à toutes les autorités administratives. Ça, c'était la première audience. waaw ah, mu ne leen non loolu leen wax audience bi. mais de l'eau beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. mais très bien loolu laa expliqué moo tax loolu moom foofu la yem wax leen ko mais après lan moo xew même na parce que loolu aussi bu ko fàtte parce que xam nga aussi politique événementielle bi ak fee ni muy ñëwee muy déterminer dinamique politique bi après xew mooy dafa am ay. Euh, euh, dafa am ay ay député yu accusé affaire yu jar ne dañu jar ay juge constitutionnel accusé laay wax ni parce que man boo xuma ne dañoo jar kenn dañu accusé xam nga loolu mosul am man de étudier naa histoire élection présidentielle Sénégal yëpp loolu mosul am yemuñu foofu ñu dem def groupe parlementaire ñu def pardon commission parlementaire pardon commission parlementaire def ci commission parlementaire commission bi lan la accusation de corruption condition de vérification des parrainages commission parlementaire bi ñu defee information judiciaire sax la ñu arrêté commission parlementaire parce que loolu euh, euh, règlement intérieur de l'Assemblée nationale moo koy wax donc loolu aussi c'est sérieux donc c'est pas que spoliés yi dañu leen jox benn statut de déedéet dafa am ay faits qui sont des faits allégués du avéré mooy am na man xaw ma a am na dañ fi allégué loolu dañ ko wax biñ ko waxee ba ñu def ci commission d'enquête parlementaire donc loolu yëpp indi coow yemul foofu tamit de ñi def commission d'enquête parlementaire bi dem déposer proposition de loi constitutionnelle du président moo ko déposé de proposition de loi constitutionnelle munoon nekk projet de loi président bi loolu yëpp amee munoon na dugal benn projet de loi constitutionnelle mais déglu ko groupe parlementaire PDS ñoo déposé proposition de loi constitutionnelle pour reporter l'élection suñu groupe parlementaire ànd ci ak ñoom ñu envoyé ko président Macky Sall parce que règlement intérieur mooy wax ne suñu initier proposition de loi boo xam ne jógewul ci exécutif bi il faut ñu envoyé ko président mu wax ci xalaatam balaa ñuy mën a continuer mu xool ko bi mu ko xoolee mënoon na wax waaw ànd naa ci reporter les élections yi wala mu ne ànduma ci mun leen je prends ñooñu continuer donc c' est pas que ñooñu dañ leen jox statut de may mun a suul yi dafa am ay fait yi may wax ni yoo xamante ni moo indi woon ñu bëggoon reporter élection yi te xam lan moo am solo mooy ñooñu bi ñu defee loi ba voté ko à la majorité des trois cinquièmes te ñu xam ne conseil constitutionnel généralement suñ fa yóbbu loi constitutionnelle lu conseil constitutionnel rek Sénégal conseil constitutionnel yu bari yëpp wala juridiction constitutionnelle muy cour muy conseil dañ naan généralement du ñu contrôler par rapport à la constitution une loi su dee loi ordinaire par rapport à la constitution ñu contrôler ko su dee loi organique par rapport à la constitution ñu contrôler ko su dee traité international par rapport à la constitution ñu contrôler ko mais généralement su dee loi constitutionnelle du ñu ko bëgg a contrôler benn yoon la ko conseil constitutionnel mës a def Sénégal benn yoon muy 2016 te loolu c'était en matière consultative constitution bi moo ne président su bëggee def référendum constitutionnel su bëggee soumettre benn projet de loi au référendum day laaj conseil constitutionnel ba pare conseil ko wax ko xalaat foofu xalaat la mais contrôler une loi constitutionnelle au contentieux en matière contentieuse musul am Sénégal le conseil constitutionnel s'est toujours déclaré incompétent pour contrôler une loi constitutionnelle parce que day considérer que le pouvoir constituant est souverain mais bi yoon conseil constitutionnel accepte contrôle bi censurer loi bi ne dàq naa loi bi loi bi baaxul parce que dafay violer article. ils ont eu raison voilà. non dafay violer article 103 de la constitution dafay violer article. mais yow en tant que en droit constitutionnel. non juriste la dès l'instant démocrate la. que ça su ko conseil constitutionnel waxee rek dama ci ànd. waaw man may